ñu war a jël ay matuwaay tey jii yéen anciens internationaux nan ngeen di dundee loolu. waaw ah, merci Pape nga baal ma ci retard bi parce que. bon non comprendre nañ comprendre nañ ma avion laa jël. avion nga jël. avion bi yéex a ñëw. Mhm. moo tax ma dama jóge base Wakaab nii vraiment. nga nga spectateurs yi baal ma. Mhm. mais Pape Alé euh, balaa maa tontu soo question dinaa wax benn affaire euh, dafa am ñu ma bëgg a gërëm parce que li ñu def bo defal bokkaan bi démb. Mhm. vraiment lu daw yaram la. kuy dund ci Sénégal bëgg nga am am lu mel. nga am lu mel noonu. maa ngi ciy profité man mi nga xam ne maay coordonnateur ancien international de football yi maa ngi ciy profité di vraiment di remercier. ministre Malick Gakou ministre des sports. vraiment ak président fédération. parce que ni ñu organiser affaire yi musu fi am musu fi am. président de la république ñëw ñu perte nit ku rëy. vraiment maa ngi leen ci maa ngi leen ciy félicité. maa ngi leen ci jàppale ngeen gën a continuer liggéey liggéey bu baax parce que Malick ministre nga sunu ministre nga mën nga liggéey daañ la jàppale nga gën a liggéey parce que ñun famille football bi ñun ñëpp dañu war a nekk benn il fallait que moo wax leen ko. Mhm, c'est important. rax ci dolli. ci loolu sax nga fekk kii di wax. Mhm. doon benn bi waaw. il faut une synergie autour de ce football sans une synergie duñu dem fen mhm. ñun sénégalais manko kenn mënuñu. mais bu buñ dislokowee rek gars yi ñuy mën. Mhm. loolu la moo tax il faut ñu bokkoo mànkoo nekk benn. Mhm. bokk wan nañu yoon wi te pabale li ñu defal Bokande neex na trop mais man toujours dama koy wax. Mhm. kii je l'ai toujours parce que toujours man leen bàyyi leen à titre posthume pendant que les gens allaient à l'école pendant que les gens allaient à wolof ñun bi ñoom bi ñuy dem école. ñun ñu ngi doon dem école ni ñoom yàlla mën mayloo ñu ñu mën a football ñu woo ñu équipe nationale ñu bàyyi suñu jàng da ngay jël avion dem Togo dem Côte d'Ivoire. Mhm. dem Cameroun jóge fa dem Congo doo dellu si Sénégal weer ngay def ci àll bi di football pour sa réew di ñafe pour sa réew di xeex pour sa réew nekk xale joxe sa physique joxe sa mental joxe sa lépp. en contrepartie, qu'est-ce que l'État a fait pour nu Rien du tout. Moi, je ne parle pas pour les anciens internationaux de football. Mmh. Je parle pour les, tous les, tous les tous internationaux les sportifs, de, toute, de, toute compéti de toute discipline. Hmm. ñun ñëpp ñoo fi ne joxe suñu kii mais balaa ñu laa jox rek balaa ñu laa defal rek nga dee ñuy jur fanfare di joxe xaalis fii di joxe xaalis fii am na benn affaire bu ñu naqari ñun. Hmm. mais un yaawu jaal qu'est-ce qu'il représente. dara ko jox ko kër jox ko oto. qu'est-ce qu'il fait pour ce pays rien du loolu moom jàpp ñun on on mendie ñaanuñu kenn saraxuñu yalwaanuñu mais qu'on nous donne notre nañ ñu jox suñu statut on a bourlingué partout nañ ñu jox sunu statut bàyyi lépp topp sunu réew. Mhm. ñun hymne national ñun rek lañ koy tëggal ak président de la république. amul premier ministre amul ministre kenn du la tëggal na foo dem mais ñun fépp fu ñu mës a dem tëggal nañ ñu na ñu koy dégg di ko woy di dugg ci terrain bi di xeex pour pour suñu kii gars yi di jàng di am diplôme. boo waree def bac ñun la session octobre session octobre ñëw ñu convoqué la équipe nationale nga yàqu ñu bare tere seen doom am na ñoo xam ne ñoo ñu dàqoon fubal fuuf seen i papa dañ leen tere neen du ngeen fubal jàng leen boobu jàng xew. football amuloon xaalis dañ ko doon def pour le simple plaisir de football. ñun suñu prime bi gën a rëy Ndofène ngi ni Sénégal Togo la 35000 francs CFA la woon dañ doon fecc c' était en 72 dañ doon fecc. 35000 mais ci boobu nag représenté woon na tuuti koppar. mais tuuti dafa am lu ci Sega fàtte. Sega ba léegi ñoo ngi dàq suñu 20000. ah luy loolu. 15000 expliqué la xam nga dañu dem <laughs> Sénégal Togo dafa naa nga remercié Sénégal Togo. bañ juree jàmm. fekk Togo. Mhm. dem Ghana Accra fekk fa Ghana gañe ko 2-0 ñun ñu war a taseeg moom à Lomé bi ñu egsee le monde du football yëpp dañu ñëw parce que dañ defe ni ñun dañuy rey dañuy rendi ñu dem xam nga ku fekki Ghana. Mhm. équipe championne d'Afrique nga fekki ko Accra gañe ko fa mooy doolaal ñun ñu ñun bu ngeen gañee daal leen may 35 000 ñu gagné 3-1 match extrêmement difficile. ba marché bi tasee 15000 la ñu jox ba léegi ñoo ngi dàq suñu 20000 waaw. mais est-ce que loolu tamit yéen boo leen est-ce que ànd ngeen def benn dànk wala jot na nag fi mu nekk nii. non ñun ànd nañu am noonu. on a une des anciens internationaux de football. Mm-hmm. am nañ récépissé am nañ compte bancaire am nañ tout man faraluma kenn. Mm-hmm. man képp ku ma xam seega ginaaru kenn nenu ma. Mm-hmm. man dëgg lu ñuul lu ñuul la lu weex lu weex la. loolu la. man noonu laay fonctionner. bu dul woon football bu dul woon football bi ñu mënoon kenn du ñu xam on passerait anonyme football moo tax ñu am ñu xam ñu. football bi nag yàlla may ñu ci bayre gaa yi dama leen di wax man ma leen football dàquma leen woon football mais bu ñu tu bu ñu bu ñu waxee Sega Sakho rek daan football kat la bayre bi ma yàlla may yàlla moo ma ko may. moo ma ko may nit ñi bëgg ma sant ma Mbacké santuma Niass santuma si les gens m'estiment parce que kaf bi may kaf ak nit ñi la woyof bi may woyof nit ñi la moom lañ def ñun ancien sport ancien international de football. mais est que boo leen àndee nekk benn état bi du am benn interlocuteur euh, clair ngeen def seen exigence nag lii ak lii lañ bëgg fi mu ne nii ci lañu jëm parce que deew bokkaande bi indi na lu bare ci ñun. indi na ñun ñun ñëpp manqué nañu indi na lu bëri ngeen tamit euh, yàlla nañ jóg ñoom ñëpp. gis nañu l'autre jour. Hmm. l'autre jour bi président wàccee ba koy présenté anciens internationaux yi dama ko téye ne ko président yi mu ne ma naam ma ni ko ñu ngi lay demande audience ñu ngi lay demander audience mu ni ma seega dinaa leen accorder audience di dem daal ni ma seega daañu leen woo mais euh, wax dëgg tamit ci la bokk. Mm-hmm. ñu xalab ay nit parce que am na ñu fi newoon du ñu jàppale. Mm-hmm. am na ñu fi newoon di ñu jàppale. mais est-ce que jàppale boobu. Euh, ni mu nekk informel. voilà informel de manière informelle boobu est-ce que tamit loolu baax na. xam nga non parce que. waaw bu nekkee de manière informelle c'est pas structuré ça va poser un problème. tout à fait voilà tout à fait tout à que loolu man dama ne. Mm-hmm. jàppale wuñ ñu xam nga loolu du jàppale. nit mënul jël àddinaam ndaw moo daq ci àddina mu jël ko jébbal ko réew mm-hmm. ñu dem ba nga xam ni li nga xam ni loolu la xam moom mm-hmm. mooy football football la xam yow boo nekkee ingénieur wala nga nekk avocat wala nga nekk juge wala nga nekk loo mënti nekk mm-hmm. na nga jàpp ni yow loola ca nga doon yëngu man may nekk di yëngu ci leneen nit ñi jàppale école bi di ko jàppale euh, santé bi. noonu la ñu war a jàppale sportif sport bi. et particulièrement la les sportifs waxuma jàppale ñu soxla nga dem may leen lii wala nangam nangam nañ ko nañ ko def de façon structurelle. voilà te xam nga li nga doon wax léegi parce que li nga doon wax noonu laay dikk pour lu tax mën na de manière structurelle xam nga président mën na leen jël audience par exemple ngeen di dem. comme ni mu fi daan amee def naa ne loolu jeex na. fi sax ñun loolu bëgguñu ko. waaw mu yëkkati 10 millions. bëgguñu loolu jox leen wala 50 ma ngeen génn yéen rek boo leen ko séddoo. ku nekk 10 000 francs lay am ci poosam Pape Alé ma wax la benn loo xamul. Mhm. nous sommes 12 millions de Sénégalais. Mhm. depuis 60 à nos jours. 567 mhm. internationaux de football lañu. toute génération confondue. c'est clair mais am ngeen ay chiffres. 567 567 anciens internationaux lañu. de football moom lañu. Euh, li ci gën a metti mooy suivi médical amuñu ko parce que xam nga lu tax manko boobu ngay wax il est temps ñun on va faire ñun dootuñu ñu bàyyi ñu ñuy def titre posthume naa la wax benn anecdote Calan de son vivant xam nga lu mu def dafa ñëw stade daan ni la grande nuit de Calan gars yi ni ko Calan da ngay a dee mu ne déedéet la grande nuit de Calan vivant parce que da ngay feebar léegi am ordonnance su cinquante mille. Mhm. duñ ko jënd nga dee ñu dépenser ci yow un milliard c'est pas normal nous anciens footballeurs on tend la mai nañ ñu jox sunu statut. Mhm. li ñu li ñu moom nañ ñu ko jox. Mhm. ñu ngi sant yàlla parce que euh, moi qui suis coordinateur des anciens internationaux de football. Pabale 564 7 7 Pabale man maay def Pabale Pabale man may toppatoo. ñi feebar maa xam ñëpp je les connais par cœur ñoom ñëpp dama leen bind maa xam ñi feebar ñi sonn c'est ce qui te nag du ñu dem fen dañuy toog rek am seen ngor. am seen dignité. Euh, quand je vois un capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Mm -hmm. l'un des meilleurs Moustapha Dieng. un un un un icône un, un la c'est une icône Toumani Diallo l'un des meilleurs gardiens d'Afrique ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen qui sont malaat yor ay kaan di dox nit ñi duñ leen toppatoo ba ça nous mal. heureusement parmi nous. heureusement parmi nous. parmi nous y a un gosse qui des gens qui nous aident parmi nous. parmi des anciens internationaux. yàlla baaxee ñu yàlla baaxee. anciens internationaux yooyu. ku ci feebar ku nit ku feebar. wala nga def loolu man maa la naan eh, diw feebar na. mais loolu moo jaaduwul nag aussi. mais foofu laa bëgg a que yow nga yow nga réglé. allez-y Sakho la solidarité entre xam nga sax loolu ñun mën nañ koo bañ a wax fii parce que euh, gis nga solidarité entre sportif solidarité fête la gis nga ñi nga xam ni ñoo bokk guerre wala ñoo bokk njulli. Mhm. wala parce que dem di défendre défendre sa réew ci beneen réew. sa mhm. pratiquement une autre forme de guerre parce bu njëkk. Mhm. dañ ko doon dañ doon guerre. diggante arme ak arme. loolu xewi na am na neneen noo xam ni noonu la ñuy natte réew yi nañ doon natte réew yi mooy da ngay indi say ndaw ma indi samay ndaw ñoom ñaar ñu jongante. ñu seet ban réew moo ci mooy mooy. mooy jël ndam li moo tax mooy jël ndam li dañuy tëgg hymne national donc li ma jàpp mooy mënuñoo toog ba jamono yi. Euh, li nga wax sax loolu dëgg la mais jàpp naa ni ay ay Macky ay Pape Abdoul Mbaye et cetera bu ñu bëggee audience ñun dana gaaw.